ba tey di ànd ci ziar bi nga xam ne moo di ziare addiyee Daaru Salaam yi nga xam ne mi ngi bàyyi ko woon ci eh, Pastef ak ndigalu sëriñ Modou Rokhaya Mbacké ci atum 1983 eh, naka jëkk nag saa yuñ ko masaa di def gis ngeen ne sëriñ Cheikh Anta Mbacké daana ko ànd ak alhaaji Jibi Diagne moom parent eh, mi nga xam ne ku ne xam ne taxawaayam ci liggéeyu sëriñ tubaab bi tey jii nag mu ñëwaat fas yéene àndaat ak sëriñ Cheikh ci liggéey bi nga xam ne Eh, mi ngi koy liggéeyal Serigne tubaa rawatina nag ci daara ji nga xam ne Serigne Cheikh doon na ko defal sëñ Modou Roqe waaye juróom lépp nag alaaji ji bi nekk ci eh, seere ñu déglu kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati. maa ngi ñaan sa borom mu jéggal ñu suñu bakkaar yi bakkaar mujj yi di ñaan sa mu fóot xol yi ba mu weex tal yàlla na sa yi ci xol yi soxor rëy nay ak mboolem doon xol jullit loolu ñett yooyu laa xam ne mooy gàllankooru julit sëñ Touba nag du defar ay yére ab xol lay defar sëñ Touba boo ko xoolee ci yére doo ko xam sëñ Touba boo ko bëggee gis ci taali bi ngay xool di xool xol ba day foos xol ba mu weex tal dina ca soxor rëy nay moo tax foo fekkub taalibe day tabe foo fekkub taalibe day woyof foo fekkub taalibe day day day day day day day du soxor day laabiir foofu la sëñ Touba mën ne ñu bari wala fa la mën a ñëpp yonent bi nga xam ne moom yonent sallallahu taala sallam moo gën ñëpp ba sans bëggee mu gën dafa opéré xol ba waaye bu ko bàyyi woon kon mook doomu aadama yi yem waaye du ko defar Sëñ Tuubaa tam loolu la doon ci ci yonent bi bay defar ay taalibeem ci jikko yàlla nañ ko yàlla fayal eh, sëñ Cheikh nag dañoo kontaan Eh, sëñ Modou Rokhaya kontaan na sëñ Modou Mamoune kontaan na maam sax Anta kontaan na lii ñuy wax yàlla tax ñu di ko wax dañ ko fekkee seere ko neew naa la bépp sëñ Modou Rokhaya jógee boo mënti woon a jël mission bi doo la fi bàyyi da jiital keneen ñëw bañ am ko fi mën ne waaye sëñ Modou Rokhaya li mu liggéey sëñ Touba mënu ko bàyyi ku ko yàq mënut a nekk maa fekke maa ko dund kon nag li may wax sëñ Modou Rokhaya bi mu fa jógee sëñ Mourtala jox la ay sas ay millions maa fekke nga defal ko lépp aw yoon te ba mu ba muy waxee da ko santaane ba noppi maa fekke kum ko sant nga daw kum ko sant nga daw mu wala sant la ko nga defal ko ba mu yegg ñu doon foofu nga yem nga boole ko oto jox ko jox ko jox ko sëñ Murtala doomi sëñ Tuubaa loolu jógee fa sëñ Abdou Khadir nga liggéeyal ko ba mu jógee fi sëñ Saliou ku ne teg na ci sa bët li nga ko defal alaaji baara ñëw nga liggéeyal ko loo xam ne ku teg na ci bët maa fekke sëriñ euh, Cheikh Mati lay ñëw nga liggéeyal ko kër sëñ Tuubaa liggéeyaat ko mu bëgg lool maa fekke sëñ Muntaxa mu baax mii gën fi fop yàlla na fi yàgg lool te wér Mbàkke reem jooju mu ree dama naan sëñ Basiiru Mbàkke mu nga gane àddina ci mbég ma dama ne mbég moomee moo daanu ba ñëw ci sëñ Muntaxa mii mbég moomee moom de moom laa xalaat sëñ Muntaxa daal mbég mañ ñu doon wax naan sëñ sëñ sëñ Basiru ma nga xam ne moo gën a àddina ceelal ba ca mbég ma loolee moo ñëw ci sëñ Muntaxa mii foo ko fekk day ree mu di mbég ree moom jàmm rek lay àndal ree du ànd ko ay wax dëgg yàlla lañ ci jot a fekke ba tey jii kanam gii nga xam ñëpp baax ñëpp a gën waaye nag rajo sax dàkk ci sëñ Muntaxa lañ ko gisee waaye sëñ Muntaxa la koy reeloo lu baax lay doon de du ay caaxaan de du am po baax a tax muy ree de daa gis lu baax yaakaar lu baax jaar ci lu baax ni ko dem ma dem ku demul ma dem loolee tax muy ree xel maa dal sëñ Cheikh nag loolee ma lim lépp def nga ko lépp baax na waaye nag sëñ Modou Rokhaya mi nga xam ne mooy waaja moo la waajal moo la gemb moo la jàppale kenn wul ko fàtte waaye fàttewu ko tey jii ngay fay bor lii fay bor la tàmbali na sëñ Modou Rokhaya ni mu bàyyi woon kër gi nga liggéeyal waa kër sëñ Tuubaa ba ñëpp am sa ngërëm ba ñëpp gërëm la ñëpp a gërëm de ñëpp a gërëm ba ci lii nga mujjee def ci kër sëñ Tuubaa gi deux cent et quelques millions muy fii nga xam ne mooy saal daal mooy fii nga xam ne fii la xalifa bi dal defar nga ko yàggul woon ci sëñ sëñ Cheikh Mati Lay nga defaraat ko encore ci sëñ Muntaxa yàggul ràpp fi xaju fi waaye nga defaraat lépp defaraat lépp lépp di sëñ Tuubaa kon sëñ Tuubaa bég na wax naa ne maam Cheikh Anta bég na sëñ Modou Mamoun bég na sëñ Modou Rokhaya bég na waaye sëñ Tuubaa bég na waa këram bég nañu ñaar yooyu ngërëm yooyu nag bi nga ko boolee nag song sa kër bàyyi bi lay daan nga barke Sëñ Tuubaa daan nga daan nga li wax dama koo fekkee dama ko dund sëñ Modou Lo xëy jàpp sa loxo jàpp sama loxo boole ñun ñaar ci benn ci benn néeg wax ju wax jëm ñu wax keroog ba mu wàcc liggéey maa ngi yow ko yëgandoo ngan ma jibi jaaral daaru baaxum jël euh, jël euh, am man maa ngi jaari Cees jël ñu ma war a jël keroog laa musa jaar daaru baaxum keroog laa musa dem daaru baaxum mag sëñ am ñu dem diggante mbaaba garas ak Bambey mu am xuru yaatu xuru rëy aw nawet barki sëñ Tuubaa boo maa ngi yoroon Mercedes ñu ñëw ba ci xur wi lépp dim ndox oto bi dugg ci biir ndox mi gisatuma dara kenn gisatul ma ni sëñ bi musiba am na de mu ne ko dugg na ci ndox moo xam ne fu mu fu yem du xam dugg na ci ndox moo xam ne xamuñ fu muy yem oto bi dugg na ci biir ba réer ci biir biir ndox mi ku jaar diggante Bambey ak ak ak Babacar di nga ko gis ñu góorgóorlu di accéléré oto accéléré ba mu génn ma xam sëñ moo la xëy ñu génne ñu daw yëkkati ba fii ci Daaru Salaam ni cel soxna Ndeye Diop daal di gis sëñ Cheikh ni ko waaw sëñ Cheikh yéen di Daaru Baaxam ngeen leen nekk tey loo fii indi tey waaw moom paa lu leen fi Daaru Baaxam ngeen dem sëñ Cheikh daal di gëmmee rek ndaw sa yuuxu Ndeye Diop yuuxu dëkk bi dagg Daaru Salaam mel ni maggal ga ñëpp ñëw waa Mbàkke ñëw waa Tuubaa ñu ñu sëñ Modou Rokhaya neew sëñ Modou Rokhaya neew sëñ Cheikh gëm na góor góorgóorlu na muñ na bataay waaye bi ko soxna Ndeye Diop ne lu ngeen fi wut si tey yéen di daaru eh, daaru ngeen daan nekk lu ngeen fi wut si ana sama maam ana góor gi ana sëriñ bi sëñ Cheikh xaw a quelque rek mu daal di yóoxu mooy yee dëkk bi maa fekke sëñ Cheikh yàlla na fi yàgg billaay barki sëñ Tuubaa may wax dëgg la de te yombul de liggéeyal waa kër sëñ Tuubaa bañ ni waaw nga liggéeyal waa kër Seex maam Seex Anta bañ ni waaw yombul xaw ngaa dee métti na te damay wax ni joxe mook dagg saw yaram yam ku ko seet ku seetal koo gis day amu fit te li nga def lépp aw fit a koy def ginnaaw ba nga xam ni sëñ ma doxee gemm na la ba pare lamb jàngoo koo dere di ko daan ku la song dina daanu ko la song dina daanu bàkki sëñ Tuubaa maa ngi ñaan ñëpp jàmm képp ku fi dikk yaakaar ji fi yàlla def gëm loo ko doom adama yi yebalin fi yow képp ku fi dikk yàlla yàlla faj ajoom ku fi yàlla yàlla faj ajoom ku yàlla na nga yokku ba yëg ko bu déwénee lu waay def ren jii bu déwénee yàlla nga mën na ko yokk mu sëñ nag moom dama koy gërëm ko santaat ci occasion bi dama ni Hizbut Tarqiyyah aatu ak Youssou Diop dama leen ni ba mu jafee ba jafe sëñ Mountakha moo leen kar ak yow mii yéen leen kar booba jafe na booba yoon wi xat na jafe na ngeen kar leen mën leen a agsi ngeen ci sëñ Touba nag léegi moom laa wax aatu de man ko waa kër sëñ Touba ngeen nekkalan waaye sëñ Mountakha mii moo leen doon kar ba mu xatee ba yoon wéetee léegi nag agsi ngeen nag ci sëñ Touba nag sëñ Touba mooy mooy sëñ sëñ Mountakha te it sëñ Mountakha wanee na ko ndax lu muy def ñoom lay jiital ñoom lay àndal ñoom lay langal wax ji gudd na loolu ngeen baal ma wax ji gudd na loolu ngeen baal ma yàlla na yàlla dooli sutura yi dooli jàmm yi te dooli fa la wér ndax soxla nañ la fi Mbàkke suñ Cheikh Anta soxla nañ la fi yàlla na la yàlla defal lu wér dundal téeméeri at yu mat sëkk sëkk gën ngaa néew yàlla am na ko sañ na ko man na ko ndax njëriñal Daaru Salaam nga njëriñal Tuubaa nga sagu murid yi nga barki sëñ Touba eh, wax ji gudd na lool sëñ Galas ngeen bal màq waaye lii mun ma ko woon a bañ wax tey sëñ Galas maa ngi lay gërëm ci occasion bii nga ma jox ba nga xam ne sax ji suma seen àdduna bépp dégg ko ñu xam ne Jibi Jaañ moom parent mooy wax en toute liberté laay waxe sans condition dama koy wax conviction lu ma gëm la lu ma dund la lu ma fekke la moo tax ma di ko wax ku mu neex nga gëm ku mu naqari nga weddi waaye bis bu ñu dem ngeen xam ne gëm moo gën moo gëm sama wax ji moo gën bañ weddi ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu